joolaa bu yalwaan bu amee nañ ma ko na ma ko benn internaute bindal joolaa doomu joolaa bu yalwaan ndakaaru joolaa bu yor pot di yalwaan man de man laa wax de mën naa am ma juum je mm. pense bien mais mësuma gis joolaa buy yalwaan ndakaaru xale joolaa wala magu joolaa bu wala joolaa bu ne ci ay caaxaan wala nag même bañ nañ ko ba administration ñoom dañ fa am réputation bu rafet a rafet dañ lay wax ne même booy ut secrétaire booy dénk dara dañu wax naan dañu gëm service dénk leen ko may nuyu du passage monsieur Coly nekkoon euh, dëkk Cité rajo Tëngéej nekkoon Sonatel patron bu Sonatel bu de ak Papis Coly doomam ñoom Moussa Coly ñu nekk ñoo xam ne waa Casamance lañ ñu bëgg Ousmane Sonko ko bëgg ak njabootam bëgg Ousmane Sonko mais de par ñooñu nga xam ne Casamance lañ jógee ma juddoo HLM Tëngéej màggee fa yaroo fa doon fa wax ay doomam euh, daan fréquenté kër gi gis valeurs yi nga xam ne dañ leen ko inculper ñoom en tant que joolaa nga xam ne du ñu wor du ñu fen ci ñoom rek ak ma dem Casamance nekk militaire nekk Casamance diir bu yàgg fréquenté joolaa yi xool leen xam ne xeet lañ boo xam ne noblesse ci seen deret la nekk du ñu wor te loolu ñëpp mun nañu ko seere du ma ne nag foo gis nag exception am na. xëy na cent joolaa yoo gis cinq joolaa mën nañ jàdd yoon mais maanaam li ëpp moo am solo mooy la majorité l'emporte donc vraiment may rendre hommage euh, ñu nekk Casamance. may wax ne armée bi également. war nañu tenir ay assises nationales. Hmm. ci Casamance parce que dafa nekk problème boo xam ne dafa sérieux d'abord depuis lors ñu ngi wut ay solution mais ba léegi solution carrément amagul solution mooy Casamance moom boppam. carrément. Hmm. moom boppam mooy maanaam fitna tegeeku fa nit ñi vaquer seeni occupation at institution yi di doox jàmm am mbay mii par région la boo xam ne moom rek mën na dundal Sénégal. Casamance si wàllu jus naturel yi. man je vois mal jus naturel yi di jóge bitim réew ñu koy jaay nit ñi fii benn sénégalais mënul naan ci réew mi jus lu ñuy wax jus naturel. jus yi ñuy présenté comme les sénégalais ay jus naturel du ay jus naturel. Hmm. parce que le le le le le naturel. et l'artificiel du ñu benn maanaam mooy li ñuy wax naan l'adoration naturelle du créature à l'égard de son mètre original qui est Allah mooy maanaam nga adorer yàlla sans safara sans ajjana loolu adoration naturelle donc bu ñu ne jus naturel mooy orange bi orange bi d'abord dañ koy dagg orange bi dañ koy dindi ci garab bi ñu dagg orange bi ñu nal ko def ko ci kaas ñu jox la ko ne la Pa Ousmane jus naturel mi ngi nii là y a pas de commentaire mais orange bi bu xësee ba dem si usine bi ba ñu nal ko ba def ci yeneen produit chimique yokk ci ndox rek génn na cadre naturel nekkatul ci état naturel loolu tax ma ne sénégalais yi naanu ñu suy naturel te jot na sénégalais yi di dundu lekk lekk ku neex di naan suy naturel di lekk yàpp yàpp pour mu yomb foog li xar yi di lekk yomb Casamance foog ñu ci ay voies yoo xam ne bu ñu bayee day mën a ñëw ndakaaru léegi mm. ñu sanc fa ay usines yoo xam ne implanté ko fa yoo xam ne dafay defar ay jus naturel nga xam ne boo amee téeméer sax naan jus yi boo amee deux cent naan jus yooyu yëpp état bi war na si mën a xalaat mais généralu armée également ñu def ay concertation ak armée ñi nga xam ne ñoom ñoo jàng guerre jàng ay crise bu amee ban taxawaay la ñuy am na la ñuy def ba jàmm ba jàmm ñëw affaire yooyu sama xel di dem ci colonel ni nga koy waxee noonu am na parenthèse ba ubbi dama bëgg <coughs> am lu mal ci laaj su ko defee ñu tëj ko ñu ñëw euh, ba tey ci même siège bi ci li nga xam te maa ngi la ko doon juñu sànq accord militaire yi ñu war a yër da nga wax wax état bu Ousmane Sonko bi nekk prison euh, ba li nga xam te moo aju ci wér-gu-yaramam fuité Euh, mais dafa am benn séquence boo xam ne peut-être bu dee ñu ngi ko doon dégg mais leeralul ñu amuñu en tout cas ku ñu leeral lan moo waral loolu mooy état bu Sébikotane bi mu fay nekk di prisonnier Ousmane ko ñu jëlee ko fa indi ko principal ginnaaw principal dellowul Sébikotane mais Cap Manuel lañ ko yóbbu. est-ce que am nga ci explication. waa xam nga Ousmane Sonko nguur gi daf ko jàpp ba pare gëmul ne jàpp na Ousmane Sonko maanaam dañ ko jàpp ba pare kenn nguur gi si boppam gi ko jàpp ñoom gëmuñu ne Ousmane moo nekk nii si seen loxo maanaam jàpp bi daf leen jomb dañ ko jàpp ba pare ragal tiit gëmuñu ne ñoom jàpp nañ ko léegi pour des raisons de de de sécurité moment boobu yëf yi tàng na xamuñu ban mu lan mooy nekk réaction opinion bi sénégalais yi ak yooyu bu dee biir Ndakaar nga ko jàppoon yóbbu ko benn kaso directement Ndakaar. ay problème mën na am te problème yooyu bu amee biir ndakaaru laa wax kenn du ko mën a contrôler léegi ñu ne ñu ñu ñu teg experts yi nga xam ne ñoo am xam-xam ci wàllu sécurité ak yooyu ñu ne nañ ko yóbbu en première li sécurité prison Sébikotane parce que prison Sébikotane dafa isolé li ginnaaw prison bi yëpp àll moom ko wër donc pour nga jëlee détenu bi foofu yóbbu ko beneen point dafay yomba pour ay nit ñëw attaquer prison bi également dafay dafay xaw a jafe tuuti parce que prison bi li ko wër am na ay xaj boo xoolee unité canine hmm. mooy seen xaj yu soxor yëpp foofu la nekk noonu yooyu muy remercier le colonel Jean Bertrand Bocandé moo ko fa indi woon muy unité kanit xaj yëpp foofu la ñu foofu noonu lañ nekk donc pour jële c'était pour téye ko foofu ut solution ci moom ut solution ci moom ci diggante bi nag def na grève de la faim feebar euh, feebar dal na ko ñu gis ne mbir bi mu ngi graaw par que boobu opinion bi ñi ngi commentaire te Ousmane Sonko fait le poids Ousmane Sonko loo ko bañ bañ c'est pas n'importe qui ci lañ ko ñu indi ko pavillon spécial pavillon spécial kaso la mm. kaso la détenu yi nga xam ne dañu feebar détenu yi feebar ñëpp ci région yi foo mën a nekk si Sénégal ngay prisonnier mm. boo feebaree ba ñu war la opérer sa bët sa tànk nangam nangam fii lañu ñu lay indi Ndakaaru mm. mooy moom la ñuy wax pavillon foofu la Mamadou Seck foofu la rëcc foofu la rëccee woon foofu François Makabu foofu la wàccee liggéey mooy pavillon spécial mm. ñu indi ko pavillon spécial pour ay soin mais ci foofu noonu soo ko dund na fa traumatisme bu méttee métti boo xam ne mosu ko dund ci vie am détention am boobu ci biir hôpital bi euh, nekk na fa def na fa ay grève de la faim yu bëri bëri yoo xam ne bi ci mujj boobu sax def naa benn live Mali te vraiment xibaar yu wér te wóor parce que benn prisonnier moom moo libéré xam nga man information yi souvent ci prison yi ni ma koy amee mooy détenu boo xam ne dafa nekkoon ci kaso bi xam nga chaque jour prison yi dafa nekk loo xam ne di lay dugg nit di génn léegi bu nit di génn prisonnier yi dañ naan ko numéro Ibrahima Sall mi ngi nii wax ko lii actualité yi am ci biir prison bi kooku bu génnee damay jël rendez-vous ak moom mu yore sama kaye mu ne ma lii la ñuy lekk lii la ñuy naan garde yi def nañu fa lii def nañ fa nangam def nañ fa nangam. nooy xame ne naxu la. non dama koy xam parce que. moom su ma ñëwee daf may wan d'abord benn këyit. këyit bi su ma ko lii rek bépp prisonnier même Ousmane Sonko Bassirou Diomaye Faye jox nañ leen ko loolu la ñuy wax papier libérable xam nga kaso këyit moo la fa dugal yow. non waxuma firnde buy wane ni moom kaso la jóge waaw moom laa lay wax mais firnde buy wane nii ni mu la koy décrire ni lii la dund ca kaso ba <clears throat> noonu la demee en yi <clears throat> xam nga dafa am loo xam ne dafa ma daloon deux mille dix-huit mhm. depuis mu dal ma nag dama ci jël ay matuwaay yu yu radical mhm. ba prisonniers yi ñemeetuñ ko mooy deux mille dix-huit dama waxoon ne prison Diourbel <clears throat> amoon na xale yoo xam ne ñu ngi grève dëgg la woon mais lim ba ma joxe woon dafa exagéré mhm. ministre Ismaïla Madior Fall porté ma plainte santal ne nañ ma jàpp ministre de l'Économie Fall section recherche bi gis nga colonel Abdou Mbengue bi hmm. ak colonel Diack jëkkëru Anta Babacar Ngom falaa leen jàppee nag ba tey fu ma toog waxal leen lu baax ndax dañ ma jox toutes les honneurs colonel bi dafa wàcc ba bureau fekk ma ba fi ma nekk mu nuyu ma ak respect le colonel Abdou Mbengue lu ma bëgg suba ba ngoon ci loo xam ne réglement bi daf ko maye may na ma ko samay mbokk bu ñëwee gis ma jox ma cër traité ma traitement boo xam ne vraiment traitement bu extraordinaire fa laa jàppe colonel Abdou Meng fa laa jàppee it colonel colonel Diack ndax fa ñu ma yóbboon section recherche mais yàlla rek moo xam benn gendarme nee na ma ñun de bu ñu amoon pexe duñ la jàpp foofu si section recharge ñaareelu ma ñëw fekk ma mu ne ma yow grand bi xamee nañ ko grand bi dafa sonn ci li muy def grand yow dañ la néewal doole rek mais xam nañ ne defoo dara même gendarme yi ma jàpp xam nañ ne Ismaïla Madior Fall dafa ma jaay doole loolu wane na mbon gi ne ci gouvernement wu Macky Sall ma tëyee. ñu defeere ma yóbbu ma tribunal xam nga lu ñu def dossier bi dañ ko classé sans suite par juge yi dañu xam ne man li may wax fu wóor laa ko teg. ñu waaye induire nañu en erreur xaral. reconnaître naa ko. ah évidemment bi ñu ma bàyyee. man nag dama am grandeur xam nga bi ma ne fii ay ma jàpp nañ leen daal leen. Hmm. bi ma ay mbokku mbokku ma yooyu woowee mbir bi naqari leen. ka ma joxoon information bi dem bitim réew mais dama ñëwaat fii. ma retirer loolu noonu. loolu mooy grandeur. parce que boo xoolee si cent mbir yu ma wax. du ne cent yëpp mooy mooy mooy juste amaana njuum te léeg-léeg ñëpp ñëppay juum ci kaddu. yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom la yàlla bind def ko gën di def te yonente bi juum na. yonente bi ni mu juumee xare am na benn waaye xaañ ko xeer def ko jëf ju metti ba deretam di tuuru ci gémmiñam yonente bi mer en tant que nit ne ko taskare ñeel na la yow nit ku bon nga boo dewee safara nga yàlla nekk déedéet ah foofu moom boo fa duggee daanu safara ak àjjana moom loolu samay mbir la waxal leneen donc le parfait n'est pas de ce monde. Hmm. donc bi ma demee nag ba génn ci kaso bi <clears throat> laa gëstu benn prisonnier woo ma mu ne ma grand cinq détenus rek ñoo doon grève gars yi waxuñu dañ ne la ñëpp doon grève fekk cinq rek la woon cinq rek la woon ma xam ne kon enduire nañ ma en erreur. Hmm. ma dem toog émission balance. ma lancé ultimatum détenus yi nekk ci kaso bi yëpp ma wax leen sama coono fi ma jaar jàppale bi ma leen di jàppale. ma ne leen bés ni tey bépp prisonnier bu ma woowati ci kaso nga jox ma fausse information ba mu leer ma ne lii ma jox du information bu baax wala jafe-jafe dal ma di nga ko paye très ci biir prison yi te détenu yi xam nañ ne du ma waxantu ndax am na respect boo xam ne jox nañ ma ko lekkuma si xaalisu kenn. Hmm. dama leen di dimbali te yàlla tax depuis ma jël mesure boobu noonu affaire boobu si la arrêté ci prison yi même ñoom dañuy concerté